أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu fu sénégalais mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen nuyu di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaye di nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk rek tey nag ñu ñëw ak yéen ci benn jàngat bu am solo jàngat boo xam ni dañ koy def lu ñuy tuddee ab taxaw seetlu taxaw seetlu bu boo xam ni bëgg nañ ko yaatal lool nag waaye yaatal ko delloowaat ko ci alquran dellowaat ko ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa xam ngeen li xew ci àdduna bi fi mu nekk nii mooy feebar bu ñuy wax coronavirus ñu koy wax Covid 19 nga xam ni li mu rey ci ay bakkan bari na lool te mu ngi continuer di rey te kenn xamagul fan lay yem waaye ñun ñi nga xam ni nag dañu ne ay jullit lañ ñun. bu dara xewee taxawaay biñ ci war a am mooy ñu delluwaat ci li yàlla waxoon yàlla moom waxoon nañu ni ci alquran ni inna allaha la yazlimu nnaasa shay'an walakinna nnaasa anfusahum yazlimuun yàlla waxoon nañu ni man de duma tooñ nit ñi waaye nit ñi ci boppam ñoom ñooy tooñ seen bopp loolu yàlla waxoon na ko yàlla waxaat ñu ci alquran ni wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama yàlla waxoon nañu ni am na yoon wu ma tracé am na yoon woo xam ne teg naa ko man yàlla ni jaar leen ci képp koo xam ni yoon woowu lànk nga ni doo ci jaar dinaa la teg dund gu jafe ma ishatan danka maanaam dund gu xat te nee na yowmal xiyaam boo ñëwee dinaa la mbugal loolu yàlla waxoon nañu ko kon ñun bu amee jàngat bi ñu war a def bi ci jiitu ñun en tant que ay jullit mooy ñu delluwaat ci lu ñu yàlla waxoon est-ce que la yàlla santoon ña ca wala nekkuñu ci mbokk yi ku xool àdduna bi tey ni muy doxee xam ni yàlla rek moo am programme moom moo moom programme yi te programme am rek mooy compte parce que tey programme yi ñu tegoon yëpp ci àdduna bi taxaw na parce que yàlla xëy na taxawal bato yi taxawal avion yi force nit ñi ku ci ne toog fa nga war a toog kàttan googu yàlla rek moo ko am loolu liñ ci war a jàngee nag mooy Nations Unies amul programme Amérique amul programme France amul programme Union africain amuñu programme benn programme mooy dox ci àdduna bi muy programme mu yàlla waaw programme mu yàlla te yàlla benn programme bi mu imposé àdduna nga xam ni moom la bëgg àdduna roy ko mooy programme bi mu jox yonent bi sallallahu alayhi wa te tey jii àdduna li ëpp ci àdduna dañu rejeté programme boobu bañ nañ ko ba boo koy wax sax dangay ngay xat ci pénc mi tey booy taxaw naan nañ delluwaat ci yàlla delluwaat ci alxuraan boo moytuwul ñu ni la yow terroriste nga tuumaal la li ñu rey ci ay bakkan ci àdduna bi ci nit ñoo xam ni dañoo taxaw rek ni nañu wax li yàlla bëgg wax li yàlla bañ ñenn ñi dañ leen a boom ci ay bomb ñenn ñi dañ leen a tëj ci kaso yi ba ñu faatu ñenn ñi dañ leen a dañ leen a jàpp daggal seen bopp ak seen baat loolu nag liñ ci war a jàng rek ñun en tant que ay jullit mooy ñu delluwaat ci yàlla delluwaat ci yàlla gëm ni yàlla rek moo fi nekk parce que tubaab yi tey première puissance mondiale mooy Amérique yàllaa ngi leen di rey comme ni ñu rey ay ginaar te kenn mënu ci dara yàllaa ngi rey français yi comme ni muy rey ay ginaar te kenn mënu ci dara donte yéene wuñ leen ko yàllaa ngi rey puissance yi gën a rëy itali la xew gis nañ ko te kenn mënu ci dara te pareegul ak reyam te rey gi nag ci loxoom la nekk te képp ku mu bëgg a rey daf lay rey waaw képp koo xam ne namm na laa rey daf lay rey parce que coronavirus bi programme yàlla la. programme yàlla la parce que ñun li ñu alquran jàngal mooy yàlla kullu nafsin zaiqatul mawt jullit warta ragal dee waaye jullit li mu war a ragal mooy buy dee fekk nekkul ci lislaam jullit dafa war a fexe ba buy dee ngëmam nekk ci moom wala tamutunna illa wa antum muslimun loolu la ñu alquran wax même bu fexe leen ba bu ngeen di faatu ngeen nekk ay muslim nekk ñu gëm yàlla kon dee programme yàlla la nañ ko bàyyi ci ci ci ci loxo yàlla maa ngi dégg secretaire général wu Nations Unies bi nee na ñu ngi xaar ñu ngi xaar ay millions yi nit ñu faatu ci Afrique ah loolu sa xalaat la de mais du programme yàlla de bu ko yàlla programmé dina am mais bu ko programmé wul du am parce que africains yi war nañoo gën a jàngat ci mbir yi rawatina chef d'état Afrique yi. xam ni tey coronavirus ni mu tasaaroo ci Europe tasaaroo ko ci Amérique bu doon Afrique la tasaaroo kon dañuy tëj continent Afrique africain yi dee ba jeex tàkk waaye yàlla dafa wane boppam ces puissances yi gën a rëy tey mu mu mu commencé ko fa topp ci ñi ñuy tuddee ay puissance mondiale man mosuma gëm puissance mondiale parce que doomu aadama bu nekk représentant yàlla nga ci kaw suuf yàlla dafa wax ni yàlla bi muy bind doomu aadama xam ngeen ni malaayika yi ci boppam dañoo bañoon opposé wu ni ko doo bind koo xam ni day tuur deret di yàq suuf te bu dee ku la sàbbaal rek nga bëgg ñun ñu ngi sax ci di la sàbbaal bu dee ku la jaamu rek nga bëgg ñun ñu ngi sax ci di la jaamu yàlla dafa défier malaayika yi ni leen ki may bind de man maa leen ko gën a xam kooku moom mooy sama ambassadeur ci kaw suuf waaw inni jaailun fil ardi xalifatan yàlla ni nit jël naa ko def ko sama ambassadeur yàlla ni ki ma gën a fonk ci àdduna mooy doomu aadama waaw wala xadd karam naa ba ñuy aadama waaye doomu aadama boobu bu fooyee boppam nag mën naa dem ba nekk ba mel ni mala doomu aadama boobu bu fekkee nanguuta topp li ko yàlla digal mooy mu jaamu ko kenn nal ko xam ni yàlla rek moo fi nekk yàlla rek moo am kartan inna allaha qawiyun aziz yàlla rek moom kattan inna allah ala kulli shay'in qadir waaw loolu bu ko doomu aadama gëmul day dem ba day dem ba topp keneen gëm keneen gëm ni keneen moo koy jariñ keneen moo koy lor bu boobaa day àgg ca la yàlla doon wax ni ulaayika kal an'aami am na nit ñoo xam ni dañuy mujj mel ni ay bàyyi ma nga kaaf boobu ko tasbih la ñu jàng

xaw ma kan la ci waaye daal lu mën a xew moom yorul programme àdduna bi li mu wax ni africain yi dañuy dee ci ay millions yi nit loolu waxam la rek àdduna bi yàlla moo yor programme yi te yàlla mooy rey nit ñi heure bu ko neexee te ñun ragaluñu dee mbokk yi jullit warta ragal dee képp ku gëm yàlla lay ragal ci dee bu dee ñëwee nga dee yonent bi tadu faatu na ana Ababacar tadu faatu na Seydina Omar faatu na Aliyun faatu na sunu maam yi ñu yaakaaroon yëpp faatu nañ kon ñun ragaluñ dee mu def nag du ñu xaru xaru moom dafa araam buñ la nee feebar am na di nga taxaw déglu ba xam feebar bi fan la ne doo fa jaar loolu alquran moo ñu ko wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum yàlla nee na bu leen rey seen bopp bu leen yóbbu seen bopp ci alkande waaye nag ñun duñu xaru de waaye ragaluñu dee nag parce que dee moom bu ñëwee docteur mënul fexe ba doo dee docteur du dundal du rey loolu il faut jullit gëm ko yàlla mooy rey yàlla moo yor programme am kon tubaab yi seen xalaat rek la ñuy wax di wax ni daal lii liñ ci war a jàngee pour résumer mooy ñu delluwaat ci yàlla mënta ñàkk de mbokk yi buñ delluwul ci yàlla xoola dinañ dee ñun ñëpp ba jeex te dañuy dem safara te safara moo gën a yàgg te gën a metti donte kenn yéenewu ko kenn nañ bàyyi caaxaan parce que yàlla tere lépp àdduna bi dañ koy def yàlla nee na képp ku lekk riba man yàlla attaqué naa la guerre àdduna bi tey ci riba lañ ko samp banque yi fi nekk yëpp intérêt la ñuy dundee yàlla nee na bu leen njaalo ñu ngi jox ay jigéen ay carte ñuy jaay seen bopp ci mbedd yi loolu am na wala amul yàlla nee na bu leen bu leen amee ay àq yu dox seen diggante ñu ngi jaay ay nit doole di leen torturer ci prison yi di leen dóor te defuñu dara kon loolu yëpp dañ cee war a jàng jàng ci wan ni benn programme mooy dox muy programme yàlla muy programme yàlla nañ delluwaat ci yàlla delluwaat ci li ñu yonent bi jàngal li ñu alquran jàngal xam ne yàlla moo wax ni képp koo xam ne nekkoo ci di nga dund dund gu dund gu metti maa ishatan danka ay dayiqa loolu alquran la benn nit mënu koo effacé mu ci kaamil bi ba noppi kon mbokk yi ñun nag lu metti metti ay jullit lañ bu ñu yàlla nattoo dañuy delluwaat ci yàlla te lépp lu yàlla dogal ci ñun kontaan nañ ci wa maa yafalul jalilu huwal jamilu loolu la waajo wax ponkalum nit yàlla moo ko nee na lépp lu yàlla def loolu daal ñun ay jullit lañ kontaan nañ ci te ñun bu ñu yàlla nattoo dañuy wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw dañuy delluwaat ci yàlla parce que yàlla rek moo fi nekk kon nañu delluwaat ci yàlla bor ba pare fagaru rek fagaru fagaru dëgg ndax delluwaat ci yàlla mooy fagaru waaw delluwaat ci yàlla mooy nga fexe ba ba yow li nga war a li nga war a taxawee ci kaw suuf nekk ambassadeur yàlla nga am taxawaay boobu doonte nag bàkkaar mënul ñàkk bàkkaar mënul ñàkk waaye bu bàkkaar amee nga gaaw tuub delluwaat ci yàlla parce que ñun xeetu yonent bi ummatun musnibatun lañ waaye wa rabbun ghafurun lañ xam ngeen ni yàlla dafa bind xeetu yonent bi teralee leen loolu kon nañ delluwaat ci yàlla mbokk yi mënta ñàkk de te xam ne yàlla mooy reye moo yor programme am ku ko neex lay ray ku ko neex lay dundal lolou ku ko ku ko gëmul nak jarul ngay julli parce que nekk go julli in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته